القلوب خلف قلوبنا عن الغيوب واغننا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجعل جميع المسلمين ترا لنا الله الفاضرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات اسمع فيهم خدا وجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات باجتهاد تقى وجعل جميع العلماء عادلين وجعل جميع العاملين مخلصين وجعل جميع المخلصين سائبين وجعل جميع السائبين ناسين وجعل جميع الناصرين صادقين واجعل جميع الصادقين فايصين واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم بلا هدى وخيرا وكفهم من فهو غيرا وأهلنا بوبهم لوجهك وأهلهم ربنا فنسلك وجعل جميع قوتي ونسبي برحمة يوم اختلاف النسب وجعل جميع قوتي ونسبي برحمة يوم اختلاف النسب وجعل جميع قوتي ونسبي برحمة يوم اختلاف النسب وجعلنا هنا وعنا أصحاب وغبة فضلا من وهب لنا مكارم الأخلاق مع التعارف بلا ثقاق وجاء صغيرنا يوقر الكبير وجاء كبيرنا يميل للصغير وجاء قلوبنا على التوالد بلا تناسل ولا تحاسد ولا تحاسد ولا تدابر ولا تفاخر ولا تنافر حتى نسير المسلمين الحاسنين والمؤمنين المخلصين الصالحين وخلنا وعافنا بالعافية تكون في الدارين خير عافية وهم وهم كفنا مسلما ونجي كل مسلم مسلما يا ربنا وسلم وغدا يوم القيام بجاه خير من سقى الامراض غلاب المرض والامراض محمدي فلي من الهمام او في الامراض والاسقام وصلي عليه ثم سلما والي مع اصحاب الكرماء ما أفنى النصر في الدعاء وهي المريض في السائل بالناس بيت نسأل الله السلام بيضاء يا من يرهم دفع كل داعي فلا يفارق من نفس جدائي ومن عليه المساء والسماء وهنسا بالارتفاع والفلاح بسلفنا وجاء المصطفى بسلفنا وجاء المصطفى صلى عليه ربنا كما الصفا امين يا رب العالمين waa bokk yi dañu doon naan sëriñ bi ñëw na noo ngi ñaan ñëpp toog noo ngi ñaan ñëpp toog alaaji ñan alaaji ñan nga bu soo ñëwoon ni yow la sëriñ bi set ñu ma nu tuuti aw yoon rek mooy mën a demee ci sëriñ bi kii bi nga dimbi da ko tëj kii léegi ñoo ngi ñaan ñëpp toog alaaji wut sëñ bi waaw dem daanal ñu waaw duñu ma may tuuti ni yoon rek ma mën a ci sëñ bu ma soxlaa ma mën dem ci moom askan wi ñoo ngi ñaan ñëpp yegg suuf ñoo ngi ñaan ñëpp toog sëriñ bi woote woon na ci ndigalal magam ju baax ji Cheikh Sidil Mokhtar xarit sama kulu murit nañ ñaan Mbàkke mu yàgg lool moomu joxoon ko Serigne Moustapha Mbacké rakkam Serigne woote ko mu jël organisation màggal gi yëpp teg ko ci loxol Serigne Sidi Serigne Sidi doxal ko.

li ñu li ñu loolu Sonatel def ñu ko dugg. loolu mais déet loolu ñoom xamuñ ci dara. xam nañ ko démb wax nañ leen ko. wax ngeen kan nga wax. wax nañ leen ko fii kat. Mbakke loolu mooy li nga tegoon ci loxol Serigne Moustapha mu ànd ko rakkam ni yëpp waaye leen mu def ci lu bees bekk Serigne si di indiwaat ko woo seen seen ñëpp xaalis yi ci seen jox leen communication bii ren ñu doxal ko. sëñ Saliou Mbacké ñu sëñ Modou Abdou Khadir yor ko ànd ko ay magam ak rakam ba tey média bi yépp jël na ko bagaan yam waxoon ragal naa ni bagaan yépp ñëw tey lan moo ci des moo tax Mbacké sëñ Moustapha fekk mi ngi nii toog Cheikh mu Cheikh mu Khadir Salafi bi baax ji mi ngi ñuy toog Serigne Mbacke Bousso mu Cheikh Abdoul Mourtada góor yàlla ma nga nee toog Serigne bi Cheikh Sidil Makhtar borom Ngann borom guy mbind borom Mbacke Kajoor njabootam yëpp ca subaak léegi kenn desul waaye rawatina fii cérémonie bi sëñ Cheikh Bara Mati lay mi ngi nii toog àndante ak sëñ Cheikh Bara la ak njaboot yëpp sëñ Moustapha ñëw na fi ci suba ànd ak mu Cheikh Sidil Maxtaar ndax yow looy def bala ngay def lenn da ngay dem ci Cheikh Sidil Maxtaar sëriñ Moustapha Mbacké yow fii bi mu mi ngi nii toog sëriñ bi sëriñ Abdourahmane Gaynde Fatma Mbacke mi ngi nii toog sëñ Cheikh Aliou moom sëñ Aliou moom Cheikh Moustapha moom mi ngi nii toog sëriñ bi leeral la sëñ Fallou Mbacke sëñ Baale Xule ji seen naa ko mën a nee toog sëñ Modou Baale Dolli mën a nee toog waaye toogaay bu daw yaram a nga nee bi sëriñ am sa sa sàll moom sëriñ Abdoul Khadir sëriñ bi di léppam moom itam tubaarkàlla seen naa ko mu nga nee toog sëñ Abdourahmane nen ma nga nga nee toog sëñ Maodo Cissé moom bàyyi am na Cissé pire lu xew ne gis ko tubaarkàlla moom itam mu nga nga nee toog ak kilifa bari sa doom yi ñoom ñëpp ñu ngi ñuy toog fi suuf toog ci sa ak njaboot gi kenn gis ko waaye sëñ Cheikh ma leeral la tey kat lii ma gis président de la république indi ko Touba tey mënoon naa téléphoné ñu def leen conseil des ministres Touba ñu def ko loolu la ko waral rek mooy kenn Serigne Touba ak kenn Cheikh Abdoul Khadir moo tax mu yebal délégation bu toll nii kan moo ko jiite ki nga xam ne bi muy ñëw indi na waxande wi ndax yéen yéen a ko war a jox sagari njaar ah mooy sëñ Mansour si nee na indi na waxande wi mi ngi nii toog bëgg démb la ma yónni ci Cheikh Mamadou Bachir sama ki ji woo ma ban yoon ne ma yu mënti wu ma la dama laa yónni ñëw demal ma Tuubaa sottal ma ko barget bu naa ma maamam dox na fekk sëñ Tuubaa Xumar mi nii toog waaye sëriñ bi àndanteeg gouverneur de la région waaye àndanteeg kan Cheikh Mbacke Sakho di conseil président di doomi Touba. ba kër dem rek na fi waroon lu bari ci million ne lu ma lu ma rëleeti tubaab nañu leeral ni Cheikh Sakho moom it ngeen dëgg bu doon wax daaf bokkut ak Cheikh Mbacke Sakho mii kii Cheikh benn forme lañ ko tuddee na ko ñëpp leeral moo tax ñu nii waaw seen xaadim moom mooy dalal gouvernement bi Touba nee naa ko sëñ Basiru ëpp na sëñ Manar moo tax seen xaadim Diop. gor sii di taalibe moom itam mi ngi nii toog ànd ak te délégation président Macky Sall Maguette Diakhaté député Assemblée si délégation boobu la bokk Abdoulaye Seck Sadaga sëriñ bi barki démb rek maa seere mu wax président loolu maa moom a ànd wax ko ko président ni ko bis naka tey jël naa sama na ko waay ci Touba doo ko bàyyi kenn mu wax si suba lu ma soox su ko waxee dem faj nañ ko jàpp maa ngi ko noonu la bés moom maa leen ñëw dem ko mu ngi nii toog ak député yu bari Ndonga Ndiaye di conseil président de la waaye nag bokk ci kër gi di sa sëñ Madiba Sylla mu ngi nii toog sëñ Bissiré Nassar fi ñu tedd bi sëñ Xaasim Mbacké monsieur Amadou Mourtala moom itam mi ngi nii toog ñëw na. waaye sëñ bi ak Isma Diouf di doomi Touba jàppale président lool bëgg ko moom itam mi ngi nii waaye ku leen teeru Abdoulaye Hakka maire Touba mi ngi fayee Cheikh Abdoulaye Dar di njàmbaar ci mbir bi ba ñu tàmbalee ba léegi ñuur sëñ ci ñoo ko ànd mi ngi mu dendal Cheikh Abdoulaye Diakhaté chef du village Touba am na ci kese moom itam mi ngi waaye sëñ so sama yaram dal na gis naa tey sa talib bi yaa ngi yow wax ni nañ jóg toog ca waaye papa ñu woon papa ñoo ngi nii fii lay jéglu kenn mënu ma mën ñëw kenn mën na ñëw ci sëñ bi dañ dafa dem dëkk mu taawaatoon fekk ko dëkk rek Cheikh Abdou Khadim ni ko fii nga jébloo mooy seere ñëwal jéblu Cheikh papa Diouf mii ndomba tànk gu ne nag fekk na ci kër gi waaye mos a yu toogin mu ngi ma nga këram ma ngay naan ak kan ah premier ministre bi njëkk dëkk Touba mais <laughs> Souleymane Ndéné Ndiaye moom itam léegi sax day firi ma nga këram ma ngay nattal taal bi mi ngi nii taa ak kan Alioune Badara Cissé yaakaar la tayet la di taalibe Sëriñ Bamba mi ngi nii waaye Alioune nag tey yow yaa Papa Diop ak Souleymane Dieng yéen a teeru gouvernement Macky Sall bii seen digganteeg Macky Sall aju maa gaaw a benn du toog bi mën naa bokk gi mën naa xaar waaye du weex àll bi yàgg na ñu ngi nii toog kenn gisul waaye sëñ bi ma leeral la Khalifa Sall ñëw na fii ànd ak mbooloo mu bari maire Dakar ñëw fekk si yéen yéen ñëpp mu wër leen siyaare leen moom itam ñëw na ak kan Idrissa Seck doomu Touba moom itam ñëw na jagal jiite faal ñu topp ci moom ak Moustapha Mbaye ak délégation bu bari ni leen wax leen man day dëngal naa seen Bamba te ma wani ma nga nee toog ak kan sëriñ bi Maxtaar Xuran Maxtaar rek tey dafay ñëw ci ñaari fànn moom day taalibe Sëriñ Touba waaye moom Makhtar ci boppam benn parti bu bees mi ngi nii ñëw na toog ànd ak soxnaam ak kan maître Mbaye Dieng mu seet si biir Makhtar moom itam Mbacke séet naa ko mi ngi nii toog délégation yu bari ñëw na fi parti politique yëpp ñëpp ñëw nañ fi kenn deful waaye ki leen teeru nag mooy Abdou Mbacke Ndaw Abdou Mbacke Ndaw soxna May Cheikh Abdoulahi Serigne Bamba moo tax ba mu ndàkkee man ko xaw ma ne ngay def bay ñàkk mi ngi nii toog waaye sëñ bi ñu ñaanal di bëgg yi bu màggal gi ma say dana fi yónnee ndaw li ko waroon lépp moom itam ñu jëf ko Mbàkke ñuy sàkku ñaan nga ñaanal a baax a baax baax ñoom ñëpp tubaarkàlla parti yi kenn desul seen naa Bariya Suwer ak Gasama sëñ Falilou Kane tubaarkàlla Mor Seck ñoom ñooy taal bi kër gi moom itam mi ngi nii toog ah Mbacké délégation Abdoulaye Wade nag ñëw na kan moo ko jiite Omar Sarr al nettam na di ke ñëw al Mamadou Diop def ko waa al Aïda Mbodj al Ndeye Gueye Cissé ak délégation bu bari président wax leen ni man nag xaw ma ku nekkal Sëriñ bu Xaadir baal ma wumpule ko waaye man Abdoulaye Wade bokkuma ci moo tax njabootam tubaarkàlla ñoom itam ñoom ñeer ñëw nañu kenn desul Alaaji Malick Gakou wax na ne na moom itam ñëw na gis naa ko sëñ bi ñëw na nuyu ko siyaare ko moom itam ñëw na waaye nag sëriñ bi dama ko daa waxee dama gan am nijaay te mu sagal ma lool bu sañoon dem waaye ci boobu sëñ Abdou Khadre kooku mooy kan muy El Hadj Mansour Mbaye barki démb même ko ba taay ñu ko toogal mu ni jomb naa sëñ Cheikh mi ma ak sëñ Moustapha ak Cheikh Mamadou Bachir ak la ñu defal ci sama jarbaat bee nga xam peex amul lu muy moom te du ma ñëw. diggante kër si yaay bi ma ne gën sëñ Bamba la yooyu lépp sànni woon ci ñaw bokk bu yàqu jëloon pire war ko fekkee jëloon war sa taxum réew moo tax mbay maa ngi lay siyaar da nga may dimbali sax ba léegi dama am sëriñ ci métier nii léeg-léeg ma dem bay bëgg a taataar daf may fekk su rek baa mu xool ma benn bu ma xoolee rek ma xam ma war a wax mbay kon ma ngi ñaan yàlla bàyyi la fi bu baax a baax sëñ Modou Mamou ah, mu Cheikh Moussa Fadal mooy yegg si léegi ah, sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ mu moom Cheikh Abdoulaye Lahat ñu waaw sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Sowibu sëriñ Sidi wax na ni moom itam ñëw na fii waaye daal président ma seet bisimilah ma xamal la sëñ Alamine ci kër Cheikh Abdou Khadir ak yaakaar gi la sëñ Alamine Mbacké yaakaar sëñ Moustapha nga joxoon ko ndigal la nga waxoon sëñ Alamine lépp def na sëñ Alamine taxaw na ci appel yi taxaw na ci spot yi taxaw na ci émission yi ni ma taqaleen naa leen loolu lu ci war maa ko fu mu toll jokkoo sëñ ci di mii sëñ Aliou ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant yow sëñ bu xaajal moom ngay waaje moom ngay wàllee sëñ Jili Mbakke tubaarkàlla moom itam ñu ngi nii ak sëñ Jili Lappe président nag euh, monsieur le ministre naa la wax ni président Jili Lappe nii moo ko indi woon kër sëñ bu fekk sëñ Cheikh ñu tukki ni ko fi sëñ Abdou Khadir di ñaane yàlla suñu borom di ko may ak fii mu toog matu matu matu ñaari meetar sëñ Moussa ko ñaan leen ma mu ñaan génn sëñ Cheikh Fallou ba tey mu dëkk ci réew mi lii la pegg wax moo ko defoon kii mooy teew sëñ Abdou Khadir lu ñu ko waaj a def rek sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir ñoo ko defal Mbacke mi ngi nii toog ak mbokk yëpp waaye tey nag sama yaram daw sëñ si tey rek lu ma juróomi fan laa gis bu sotti bu te bu fi kenn bu jàll musóor bi maa ngi leen di maa ngi leen di sant sëñ Abdou Khadir moom la leen yàlla boole muy seen bopp ngeen dëkk wër wër taxul Cheikh Abdou Khadir Cheikh Abdou Khadir ma ne leen ren kenn mënul muy seen cër ci seen Bamba taxul doy musóor bi musóor bi yëpp tubaarkàlla taxaw nañu tey taxawaay bu rafet sëriñ bi sëñ Amat Sougou moom sëñ Maama moom itam tubaarkàlla am na suuf seet naa ko fii kon nag sëriñ bi lu daal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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم sëriñ bi ñu leer la Moussa moom itam ñëw na fi ak Abdou Karim Fafana directeur patrimoine bâti moom nag suñu Cheikh dignité personnalité fab tànkam teg fa ko bàyyi tegoon xanaa ñëpp d'accord nañu ci loolu Mbacke ñëw naa ci sa kanam ak sa kanamu rafet yu baax yi xam naa kenn du la demoo de dara ci àddina kenn du la demoo ni maa la gën ay rakk kuy sa rek sëñ Moustapha mooy waral jant jant mooy waral loolu dama ko fekk ci mbooloo mbaj yu fañ ñu ne sëñ Moustapha day jóg. bi yàgg na ah jabatuma sama xarit Alaaji Mansuur ñëw na. waaye loolu ku mu doyul lu lay doy bi ci des léegi bi Sénégal dajee ak Mauritanie ak Afrique ñoom ñëpp daje ci sa rakk ñu baax kii sa xarit bii sa soppe bii kii xam ni su waxee ñëpp ak Afrique mu mu lii ma nekk di ko liggéeyee yéen ñëpp ngeen di yow xam ngeen ku ma ko may man ko déedéet ak yoon muy waajur kenn rek a ko ci alxuraan la may. xool xool boobu yooyu mu dégg mu ma dëkk yooyu bi ci Ablaye Wade mu ma teraanga bu rëy bi ma dul fàtte maa ngi ko nuyu di nuyu Souleymane ci nekk yëpp ah xam naa si ministre <laughs> ay jàmm commandeur Lamine Mahtar Ba commandeur Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Ré Sall ak seen Mbacke Sakho ah jàmm boobu day ci dëgg-dëgg sa wëri sa la fierté fii ko fii nga soxla ak loo bëgg bëgg ak bëggeel borom dajale ni lii naa bëgg waaye boobu ñaare ci bisu góor bu mbag gii xam ne ñëpp ko nangul ca dëgg-dëgg yàlla dana ko nangul ah fii laa yem di nuyu bu baax Souleymane Leer sama xarit Ablaye lim na ministre yi xam ni ci dëgg-dëgg moom la aaj Mansour àndal yooyu ci nekk sama wala dëgg sama xarit am na xam ni noo bokk ñu juddoo gerte su ma gisee il faut que am poosam ni ma ci barke Cheikh Abdou Khadre mooy kan. mooy Aliou Badara Cissé médiateur sëñ Bas sëñ Moustapha fii laa yem waaye sëñ Bas maa ngi lay wax sama mag ja waxoon que nga bokkuloon bàyyi wax nga dëgg as na su laa ne woon bi ñuy xar sa gimiñ gi ñaari bay naa ko tax del tudd yàlla waaye ñii li ma sëriñ bu xaaral ba tëlee jëm yi def nañ ko ci man ñëw bu kenn lépp ñoom keroog bi ma dajalee fas jox ko sëriñ bi mu ngi leen parce que ay dëgg nga def bii ma ne ko waaw ma teg mun ma tey laa lay tàgg rek war dootoo war kenn du xëyee nag ñu la kay des ko bay di may ak ñoo ci wax nga def bay li tax man man naa ba ci dëkk nag lampi guddi la jéem ko taxul nga yegg ca man man nit na man liñ daan da caa nekkay na nekk ma nga xam tegg boo neexalee man mu wax la boo neexal moom ma mu bàyyi la te pen pen yoo gis peram lay dajeel su ngeen lay gis bismillah ne mi nuyu doomu bàyyam sëñ Maodo Cissé ne doomu bàyyama xaritama soppeema sopp lool gëm naa woon Xaadimu Rasuul bisimilah ñu déglu sëñ Alaaji Buso ñuy rafetlu taxawu Mor taxawaayu Mor Ndiaye Mor Gueye Mor Gueye ñu ni taxawaayam rafet na lool. gis nañ ko ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci ndigalul cheikh Seydil Muxtaar mi nga xam ne mooy coordonnateur bis bii ci xew-xew bu màgg bi mi ngi jëmale ay kàddu yu cant yoo xam ne mi ngi jële ndigal li ci Cheikh Ahmadul Mbacke yi muy xalifa ak Cheikh Abdoul Khader ak njaboot si Abdoul Khader gépp Serigne Cheikh ne mi ngi jëmale ay cantam ci mboolem ñi nga xam ne bii fi bu joxoon na ko ndigal mu woo te ñépp wuusi muy mbokk yi taalibe yi soppe yi ak wëlëre yépp ñëw nañ ci bés bu mag bu tedd bii bis bi ñu fàttali ko suñu jabaan lislaam ja ak Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ñépp wuusi nañ woote bi da tàmbalee te maam ma xaram di ci askana woon lépp ak lépp lu askana woon ci maam moo ak askani Mbacké ak lépp lu askanoo ci ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba ci njabootam yëpp tàmbalee ca ka ca gën a mag bu Cheikh Ahmadou Moustapha ba ci ki gën a ndaw ci góor ñi ak jigéen ñi soxna ba ci ki gën a ndaw mu soxna may moonatu ñoom ñëpp seeni njaboot góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp yow na fi teew nañ fi ak seex yi nga xam ne bi ñoo àndoon ak Sëriñ Tuubaa ñëpp seeni njaboot teew nañ fi kenn desul ak mboolem mbokki mbokki mu yeeg ñi def ñëpp ñëpp ñëpp kenn nanku ñëpp ñëw nañ ak mboolem fokk si Abdou Khadir yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci seen teewaay te di leen gërëm ak mboolem ñi nga xam ne nii bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo waajal ay xéewal di ko jox taalibe yi ci bis bi te ñoom ñi ci yëpp bokk na ci ñi ñu tudde Cheikh Abdou Khadir Mbacke ñëpp taxaw nañ ci taxawaay bu mat sëkk ñëpp def nañ ci Eh, ndab yu am solo yoo xam ne yi ndaw ko naa yëpp gën nañ ci ak ku mel ni Serigne Seydou Niang ak Serigne Cheikh Baara Mbacké ak njabootu Serigne Cheikh Niang jaar bi ñoom ñëpp taxaw nañ taxawaay boo xam ne lii mat na sëkk la ñu doon def dañ koo yokk ci ci baaxaay bi ak neexaay bi yëpp ndaw ko naa yi loolu kon di sant itam mboolem mbokk yi nga xam ne bii rek mi eh, ngi taxaw taxaw nañ ci liggéey bi magal gi bokk na ci ñooñu sëriñ Galas Maane Mbàkke taxawaayam ci bis bi ci màggal gi rafet na lool ci li jiitu conférence beeg waajaay màggal geeg lépp def na ci mu def taxawaayam rafet na lool ci bis bi lépp lu war a ko war ci bis bi def na ko mat sëkk sëriñ Moxtaar Diouf ba gaan xàqan moom it taxawaayam rafet na def na ci taxawaay bu mat sëkk ba lépp loo xam ne mooy écrasfera yeeg yu bare bari def na ko ci bis bi kon sëñ Moussa Diop ñu am sant di ko gërëm baax a baax di sant itam daara jëf bu xuloo bu Dakar ndax sonorisation bi yëpp ñoo ko fi indi dara man tuut wutu ci lan lépp ñoo ko indi ko indee lépp aw na yoon fa tabarakallah ñu ngi sant baax di leen gërëm di sant itam sëriñ Xalifa Sall di meeru Dakar yabal na fi délégation bu mag waaw dikk na ànd ak délégation bu mag indi fay teraanga yi di mi ngi sant itam seen mbokk sëriñ Amsatou Sall di mbokk di taalibe di soppe Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mi ngi nii fi la yoon suuf ba tey mi ngi fi ànd ak njabootam yëpp di sant itam président Pape Diop moom de moom Alioune Badara Cissé dafa mel ni ñoo moom bis gi sax jël bi leen sant waaye teew seen taxawaay rafet na ci wet gu nekk bis ak euh, premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye moom itam taxawaayam ci bés bi ak ci kër gi lu jiitu ak tey lépp rafet na kon ñu ngi leen sant baax di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla yokk seen lépp lu ñu yéene yàlla mot seen yéen na sant nag sëriñ ji la moom daanaka moom mooy sant sëriñ ñi waaye nag dafa taxaw taxawaay day seen daw ci côté bépp bi taxaw ci taxawaay boo xam ne bii dafa ñoo di ko gërëm ndax moom jàppul rek ne mbokk la waaye dafa jàpp taalibe yi dem doxal mbokk gi ak taalibe gi ba tax na lépp loo xam ne war na ko gis jox na ko ba mat sëkk loolu sax sa baax na baax di ko euh, bu Thiès moom itam taxawaayam rafet na ci bis bi ñëw na euh, ànd ak bu baax baax da si teraanga yi mat sëkk lépp lu ko war def na ko te itam ki ko yebal di yebal itam la sant itam sëriñ maître euh, monsieur yebal na fi délégation boo xam ne ki ko jiite mooy Déthié Fall kon ñoom itam ñëw nañ fi dikk nañ war a dikkee taxaw taxaw bu mag sëkk daf a lépp parce que daan sant leen gërëm dañ leen ñaanal di sant itam euh, monsieur Ibrahima Fall moom it ñëw na taxawaay bu rafet sëkk def na ko ci bis bi kon sëñ Ba sant def gërëm di sant itam Amidou Ba ministre des finances moom itam yebal na fi Thierno Ba mu dikk fii ci bis taxaw taxawaay boo xam ne moom itam li ci war lépp def na ko ñu ngi sant baax di ko gërëm te di ko ñaan yàlla yokk ak xéwalam baax a baax di sant itam Abdou Mbacke Ndaw di meeru Mbacke moom de doom la jigi ñu ngi sant day a a def waaye teew baax baax taxawaayam dafa na sëkk lépp la ci gën sëñ baa ngi sant itam suñ góor Saane Sow président domanial bu euh, maire Thiel li ko xëy àndal bépp suñ sant baax gërëm na leen seen teewaay ci màggal gi rafet na seen taxawaay moom ca àll ba foofu ci Thiel rafet na sëkk taxawaay bi taxawaay bi sëkk pour ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di sant itam meeru Deyaay muy Lamba gii muy muy délégué bu Sall moom it taxawaay taxawaay bu sëkk ak la délégation boo xam ne li ko lépp def na ko ak itam taxawaay bi ñu taxaw ca maire ci Deyaay yi ci Thiel bu Sall lépp lu ko far moom dafay def day jàpp lu baax a baax doo si bàyyi sant bu baax a baax sëriñ si dina léegi mi ngi sant waa CRD. mooy gouverneur de la région de Diourbel ak mboolem préfet sous préfet yi mboolem sa service yi la ci région bi yëpp ñu sant leen gërëm seen taxawaay mat na sëkk police ak gendarmerie rek ñëpp rek kenn ku ne la ko war nga ko xamal taxawaay seen ciite mi ngi leen baax leen gërëm nga baax a baax sëñ bi nee na mi ngi sant itam euh, maire muy sëñ Abdoulaye Ka moom it lépp lu ko war itam sëriñ Arabi ni ñu ko waxee léegi ak Aset Sow Aset Sow maire DER ah moom day wax loolu mooy nekk ci conseil te conseiller mooy sant moom itam ci turu Serigne Cheikh Aset Sow mi maire DER yi di sant maa ko di ko gërëm sëriñ baa ngi jëmale nag cant bu mag cant bu yaatu taalibe yi nag di sant itam sëriñ Alioune Diop nekk directeur ONAS yabal na fi oto yi ñëw ñetti fan lépp lu fa war a lu ñu nañ ko ma dëkk su mag sant baax di ko gërëm kon sëñ sant na daal mboolem mbokk yëpp ak xarit yëpp ak wëlële yëpp mi ngi sant seen taxawaay ci gis a rafet na lool jàppale nañ ko lool ba lépp yomb na ci moom seen taxawaay ba. am seen bu rëy ci kër Cheikh Abdou seen naa fi laay a waxtaan ak mbooloo mu jëm woote. ni nga jàppee bis si ne man kat suba teel ma ñëw ndax dafa lay biir suñ naar jenn toggaloon na ko fii ay ay ndab mu génn taxaw tim daal li ko naa moo defar lii ñu ne ko ah waaw mun di eh, eh, eh, fekk na fi bàq bi fekk na arin fekk arin bi bu baax bu sedd jiw bu baax waaye fekk na fi bàq bu doy <laughs> kon nag mel na ne loo waaye loo waaye fekk moom lu ne bayoo nga jàppe ko noonu jiw bu rafet ah dañ ne andi ne bu rafet waaye fekk na fi baax bu tooy baax ah, bu tooy yiw bu rafet nag ku ne xam na la ciy juddoo kon nag yi ñi doon ñëw si bépp da ngeen seen loolu ndax moom oh, oh, mënoon a jox joxe kam la ndax damaa amoon si waxtaan mel mag wax ma yéen ñu ci kenn ci doomi sëñ bi waaye kooku ne ma waaye sëñ moom doomam bi ñëwut ndax gis nga ko doomam di ñëw dana ma rek wax biir rek su ma ko demoon ma kon ne daal mel sëñ bi li mu jëlee ndax ku ci ne rek lu mu la lu mu la wax rek nga mën koo def ci téere ñu ngi kon ngay am na fu ñu ko jëlee mooy sëñ bi bu ko defee nag da ngay xam ne. kii maanaam xam sama ak sëñ bi la sëñ bi xayma ne man si naa rafet ci moom jot ndax ndax sëriñam di sëñ bi ñaan na ko ah. waaw gis naa ko Fatou Seye wax ci loolu <laughs> kon nag. alhamdulilah bu ko defee kon nañ sant bu ko defee nag la may li may tëjee nag mooy tombi sëñ Tuubaa yoo xam ne àddina ak àllaaxira ngi ci biiram sëñ bi dafa wax ne nga baax mënut a topp sa diggante ak loolu sëñ Tuubaa juróomi tomb yooyu moo ko wax wa kullu aamin wa antum bi xayrin asalaamaaleykum wa rahmatulah dugoon naa la yow maa ngi dugg nañ nuyu bu baax bu baax ki fi toogal xalifa nii sëñ Moustapha bismillahi rahmaani rahim taxaw fii ñun ñëpp daan def alxames bu ñu def sax ñoom mu ñoom la fi bàyyi lépp waxtaan nañ ci ak comité de organisation bi ba tënk ko tey ko ba ci évalué nañ ko ba ak si ci bis bi mu ngeen ñii tey waaye ñuy sant bu baax di la leeral ne rek di la xamal ne aussi ni ngeen ñu boole tam ñu ànd ak ñoom liggéey bi day xaw ma ñoom sant na ñoom de wax nañ ko ne sant nañ waaye ñun nit sant nañ yàlla bu na ci ñi ñu boole te ndax nit ñu neex a àndal nañ ak liggéey ndax lépp loo xam ne wax nañ ñu ko ñu jéem ko ñoom mën nañ ñu orienté nañ ñu sax ngir loolu mën a jàppali lañ ca mën ñu def ko lañ ca mënul ñoom rafetal nañ koo xëy na ba wax ne lii li li leen ci waral lépp def nañ ko déggoo ci ci rafetal nañ ko ñu agsi fii loolu it gannaaw dafa ñoo boole te luñ mënoon a mel lu métti métti danañ ko def danañ ànd ak ñoom kon suñu yàlla dimbalee ñu ñu neex a ànd ak te rafetal ko ñu ànd ñoom ba ñu agsi fii tey rafet nañu nekk ci sa kanam leeral na ko te xam ne ñaanal ñu ngi ñu boole toog daal wax dëgg yàlla jàmbaar leen di jàppale na ci liggéey bi ñoo ko ànd ba mu jeex loolu it dafa rafet lool te dafa neex ci ab ànd ñu ngi nuyu bu baax bépp koo xam ne kilifa du toog fii nga te bokk ci njabootu Serigne Touba te nga xam ne tudd nañ sama tur wala tudd ñu ko ñëpp ñu ngi lay nuyu muy Serigne Cheikh muy Serigne Moustapha muy Serigne Sidi muy Cheikh Bachir muy ñëpp ñi nga xam ne di wootu sëñ Abdou Khadir lañ te nekk fii ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sàkku ci yéen ñaan leen ñaanal ñu ci bis bii nga xam ne di sa parti jàmbaari lislaam bi nga xam ne ni ko Mansour Mansour Mbaye waxee ñëpp xam nañ ko umma islam bépp xam nañ ko yàlla lislaam jamu ko diine jamu ko yoonu murid jamu ko te kenn ko ñëpp bëggoon sëñ Abdou Khadir te bëgg ko te gëm ko ci sunna ak lislaam ko lépp loo xam ne mas na ko yëg làmmiñam mas na ko laat rek loolu nekk na seen ci barkeem ngeen ñaanal ñu loolee mu rogaat bi ñëw ci ñun ngeen ñaanal ñu ñu am ngërëmal sëñ ak ci liggéey bi te yàlla def jàmm ci réew mi te tasaare ko ci jullit yëpp te ñaanal taal bi yëpp seen i aada yàlla may leen seen bëgg-bëgg te kenn bañ a am ndox tey ko déwén bu déwénee lépp mu liggéey la def bu déwénee yàlla may kàttan ak wér def lu ëpp li asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Cheikh Abdou Lahad Ka di rafet na lool ñu ngi gërëm moom itam la nga ne ak sama xaritu bopp bi de Serigne Mar moom itam di kenn ci kër Cheikh Sidil Maxtaar moo ànd ak seen bi ñëw fan yii yëpp waaye di kenn nag ci Cheikh Mamadou Bachir mii toog mu Serigne Abdoul Khadim di gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu jox kàddu gi nag Ibrahima mooy wax ci turu fédération bi jiili Kumba laa ngi nii Galaye Fall nga ne Mbaye Sène nga ne ñun ñëpp. Cheikh Koungheul la ma nga nee toog ñun ñëpp ànd nekk benn di njabootu si nekk xaadir rek sama nijaay mu ni Abdoulaye Wilane maire Kaffrine def fee ñëw waaw wax wax naa ni sëriñ ci ni mu baax mii góor sii nee na ma gërëm naa Cheikh Mamadou Bachir de Cheikh Mamadou Bachir bu mul pi bu mul pénc bàyyi ak ruum xoolal nañ def magam yi bi mu ñëwee dañ ne nañ ma wóorul fu ma toog du ma moom. sëñ Abdou Khadim laay xoole sëñ Moustapha moom laay xoole sëñ Cheikh waaye daal nag sëñ Cheikh di sama ji ne am na wala sa mbay bu waxee nii lu teel a jóge wala isi wala makka dégluwul fenn lu da te raw fi daa gën di boole rek ñu wax ñooy kilifa jotaay bi. président la république nag tey dafa indi délégation bu am solo. nite moom da yéene rek ne yàlla dogal. yéeneem ba ci suba monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye la waxoon ne. mooy jiite délégation bi ñun ñi ñëpp bi ñu wooyee loolu la ñu waxoon wante ngànt dafay am sëñ Mamoun papaam sëñ fàllalilu ko bi ñuy wàcc liggéey ak mu jot day jël fasu naaru góor bu weex jox ko sëriñ xaas Mbàkke mu ànd alaaji ak alaaji Cheikh Touré te ñu ngi reew ñu indil ko strotam looloo tax waa kër sëñ Touba di ko def santam njaam di ko jox suñu te lettre bi ñu ci poosam. muy lu mu bindee. sa conseil économique social et environnemental. délégation boobu ndax dafa bëggoon ñëwal na boppam. dafa am njaboot. loolu nag bu ko fàtte su ma ñëwee naa ko fettali ci diggante borom muy taalibe di jullit di sénégalais di koo xam ne lépp loo xam ne moo ko ñor mooy li nga xam ne mooy jëmale askan wi kanam looloo tax président de la république ne fii ma jëm nii nee na fay jëm yiw rek am. ndax daf ne kii nga xam ne tey moo indi lii ñun ñu daje fi ñun ñii ñëpp nee na àddina wër képp ba ñëpp ñoo xam ne te nangu ne boroom xam-xam la ñëpp xam ne te nangu ne ba muy nekk ilimaan ñaar fukki at ak benn dong la am ñëpp xam ne te ràññee ne jumaay Tuubaa ji nekk na fi imaam lu yàgg yàgg te ñu denc ko ci penku jumaa ji mu jàpp na mën na ne sax ne mi ngi imaam ba léegi nee na loolu nag sa yaram jomb na saxara nee su ngeen dee dem tànk bu ngeen jël tànk bu ngeen yëkkati yiw rek ngeen di kon nag looloo tax man la bëggoon na ñëw président Macky Sall ñëwal sama bopp wante nag su ngeen demee dina ngeen xam woon naa sama loo xam ne ni ma jàng ko ci moom lu xam ne taalibe la kon nag bis bi mu jàpp ne bisam la la république bis bii xam sa alal maa ngi jëlaat sama bopp kan nag mooy Cheikh Abdoul Khadir yi may teg wala génn

ginnaaw topp ak bu jiitu ndax mënu ko donc xam ne lu baax yàgg na fi ndax ña sopp di yàlla lépp loo xam ne aw yiw la mu sam borom jagleel jullit ñi ci bis bi lu fi di yàlla na ko bokk ñëpp ndax ñun ñëpp bokk nañoo ngeen suñ yitte ñu bokk ñoom suñ soxla si te la moom lañ fépp kon nag loolu mënee su ko ñàkk wax ñi ngi sant mbooleem kilifa yi diine yi di sant mbooleem ñi bokk réew mi ba tax am na sax ci bokki jullit yi ci réew yi nga xam ne du ko ñu sax Sénégal waaye ñi ngi ci réew tudd nañu leen léegi jërut ma leen di ma di ko bamtu ñooñu ñëpp li nu boole ñoom mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah te ñu koy wax gën loolu mooy li ñu boole ku ku loolu booleeg yow nag bokk nga moom lépp te bokk nga moom loo xam ni du lu ngeen di séddoo da ngeen xal di bokk rek ba faw noo ngi sant ñëpp leen gërëm bu baax bañ tax liggéey bii mu amut nag ñoom ñëpp ñu ma xam ne maa ngi leen di seeral leen li ngeen bëgg a faxabit suñu borom moo loolu bokkul tam ngay ko lépp waaye loolu laay di wax ku ci ne toppoo nga coono bari na xam ngeen ci nawet lañ nekk yitte yi bari waaye kenn desu noonu lañu wax maa ngi gis ñëpp kër gi bu baax loolu li sëñ bi mooy def li dañuy wax rek borom listixaama wax mën nga ca kon mooy xam leen nag géej gi tefes yu wute leen te njabootu suñu du xarit rek ñii ma tudd fi ay bokkaam a ngi fi bu baax ñu bare bare bare bala ñu mën a sànni sëñ seen doom danañu fexe ba mu bind kaamil ndax lam lam leen laaj moom bokk ne dama lay jibil sama doom ji noonu def téere